sabrun zuhudun saxaa mhm. alquraan bi salami mooy fukki jikko mhm. léegi xayaa laay jël mhm. mooy kersa kersa kersa amatul laay dëgg la amatul de kersa amatul eh, amatul eh, eh. te di jëy man dama naan kersa bi li tax jigéen ñi gën ko ñàkk léegi mooy mag ñu bëri ñuy toog ci grand place yi ñoo leen ci encouragé dëgg la de mu ngi nii yii de lañuy sol ci weeru koor dañ koy sol ah, lii de mhm. teg teg ci genre seen robe yooyu noonu mais kara bii moom mhm. bi sallallahu yonent bi ah. sallallahu dafa mhm. dafa wax ni mujjum jamono dafa am lu ñu koy xàmmeewee ñu ne ko ci naka mu lim lim lim ba mu yàgg mu ne di nga gisaale jigéen boo xam ne boo ubbi armoire am amatul fu mu def yére eh. waaye bu soloo rek ngay dafa rafle waaw loolu la parce que saa bu soloo rek. sagar yi nga gis yaramam ci mbedd. Mm-hmm. lii benn ngi nii. Mm-hmm. bu fekkente ni nii. Mm-hmm. yow amoo benn kersa ba ci weeru koor. ba ci weeru koor. sa kersa dootul dañ ci àddina. dafa am weer yoo xam ni ku ci defaroowul dootoo defaru. déedéet wallaay. tey nit su jugee Dakar gàmmu jot. nga dem leew na di fa gàmmoo. ci suuru bisu gàmm guddi gàmm nga def nga def fa lu bon ci guddi gàmm yow fooy si fooy baaxatee. mënatoo baax déjà fa nga ko defee. Mhm. bis bi nga ko def. Mhm. ak guddi ki nga ko def. Mhm. ay la borom guddi gi. moo tax bu fekkee weer wi dafa dafa teru. waaye waay luñ ko mën a mën a mën a sol doon ne baaxul. na raw ci weeru koor. mais bu njëkk ba. daan gis bu ñu woolee jigéen ñëpp jënd seen i mël fa. wallaay changé carrément mais léegi jigéen ñi ñëpp ñi ci ëpp bokk. ñu mhm. ma ko sañ a wax. Mhm. ñoom dañu jàpp ni. saa waay yow weeru weeru weeru koor gi ak beneen weer ñoo mhm. xam nga léegi yëfu nante yi ñu def mooy lan. Euh. boo xoolee bu ñu nee weeru koor ak ñoom une semaine une semaine avant façon jàllaabe yu weex ak kaala naar. waaw yi ñu tuddee kaala naar. xam bu ñu ko jëndee duñ xam fan lañ koy solee. dañ sol pour photo wu ci. doo ko statut ak TikTok pare nañ ci. mais duñ ko sol dem ci mbedd. déedéet duñ ko sol mu génnee ko ci mbedd bi nit ñi quoi. waaw dañuy sol photo sànni TikTok sànni statut mais doo romb ku jigéen mukk bëccëgu weeru koor mu sol jàllaabe yooyu noonu. kaala bopp bi nga ko Sénégal duñ mm-hmm. encouragé nit. Mm-hmm. nga ki ko ko sol ci kër gi génn sax. Mm-hmm. dañ naan koor ko koor gee tax de ni mu seytaanee. waaw. su ko defee boo amulee kersatu ci boo génnee. booy duggaat booy génnaat leneen ngay solaat dëgg la nit warul neex a dévier mhm. gëm-gëmam ci yàlla dafa war a dëgër imaan mhm. bu fekkente ni nii yaa ngi sol yenn façon yi ba weeru koor ñëw mhm. dañu wax ni almaratu kulluha awra ba mu des ay ténxam ak xar kanam maanaam jigéen léppam awra la léppam awra la dëgg la de yéyu jigéen bu génnee ci mbedd mi fiiwam di feeñ fii mhm. day am bàkkaar ba bu muy duggaat wallaahi mm. laay dëgg la waxuma yeneen cër yi mm. Mm. day am bàkkaar ba ba muy duggaat est-ce que bis bu nekk ma nettali ci xide xisaw yoon ci yàlla Idrissa bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yomal xiyaam xam nga la la ko yàlla di woowee di ko di ko àtte pour laaj mm-hmm. benn picc bu mu doon dàq yoon ci yàlla daawuda mm-hmm. picc bu mu doon dàq picc bi daw ba ci benn zeng rek taxaw fa mm-hmm. mu ñëw di bëgg a jàpp picc bi ndekete am na jigéen buy sangu. Mhm. mu gis mbaggu ko jigéen ki mhm. loolu ko yàlla di laaj ëllëg. Oh. mbagg mbagg bi mu gis. oh mu gisee mbagg bi moom mbagg dafa gis mbagg bi rek eh. daf ko mhm. am na. waaye <laughs> ñun moom mbagg ak tànk ndoor ndodd ak. looloo jaaxal ñëpp bopp rek. lu la ngay gis te mënoo te parce que mënoo mënoo dox di gëmm di gëmm nii. <laughs> lu mu xool xoolaat ko. mënoo gëmm. te te te toll nii dafa mel ni dañu nekk di def comme si maa tey maanaam weeru koor gi weeru koor la rek comme weneen weer yi la lu ñu neex sol lu ñu neex lu ñu neex mel déedéet dafa am weer yoo xam ni weeru koor yàlla dafa ne lépp lu ci waay def man maa koy fayal sama bopp du jaar ci malaaka du jaar ci kenn mhm. man man yàlla. maa yàlla bañ na ko ba dafa defar. dafa defar aljana boo xam ne pour woorkat yi kese la. ñiy woor kese. ñoom ñoo fay dugg. yonent bi nag nee woon na nit dina woor suba ba ngoon. mu dog. fekk kooram googu amu ca lu dul. xiif ak mar. benn question rek laa am. waaw mooy diggante nit day woor. nekk ci milieu moomoo barab bi danga nga ñëw toog ci millier bi. mën naa la ni bu dee cent personnes quatre-vingt-dix yëpp dañoo or. Hmm. léegi ñi nga xamante ni si tey ñoom la yàlla nattoo ñuy tux cigarette ci weeru koor wala ñuy lekk ci weeru koor lan la leen sarixa wax ci wàllu maanaam nit ku woor ngay tux ci kanamam wala ngay lekk ci kanamam. Hmm. xam nga euh, euh, am na benn xisa sax buñ ci nettali woon. Hmm. benn waay boo xam ni gëmul yàlla. maanaam du jullit bokk. jullit ñi woor. doom ji di jàngi école yor mburóom di ko lekk ci mbedd bi pour dem école mhm. papa ji jàpp ko dugal ko ci kër gi dóor ko ba paree ne ko xanaa xamu ne jullit ñi dañoo woor mhm. est-ce benn yàlla ne waa jooju jëf jooju mu jëf mhm. ci la yàlla effacé bàkkaar bu mu amoon laa ndax ni mu ormaalee weeru koor ndax ni mu ormaalee rek weeru koor kon ñun ñi nga xam ne ñun ñooy jullit ba pare di woor nag waaw ñun ñooy jullit ba pare di woor kenn xàmmeetul weeru koor léegi Sénégal gis nga li gën a garaaw nga dëgg kenn du kenn du noyyi kenn du noyyi wala yi ngay jaay wala am xet yooyu. ba pare ñuy julli nga ñëw dugg ci biir nit ñi ak xet. dëgg la mm-hmm. lislaam da koy tere. kon de cigarette wax. Mm-hmm. léegi bu la lislaam teree loolu. Mm-hmm. cigarette taxatul ñuy wax. déedéet. cigarette boo ko taxoon trente minutes tamit. boo ñëwee taxaw nii di wax. di nga xam ne waaw di nga xam ni kii. perturbé kii tox na waaw ndax affaire bi. te lay dugg. dafay dugg waay jullit daal. même bu fekkente li toll na ci jamono bi nga xam ni instant bi woorul. woorul. war na buy lekk. du nit ñi de. mu ormal weer bi. dëgg la. ba suturaal boppam aussi. dugg ci biir. sa biir néeg. nga lekk ba noppi. Mm-hmm. soo paree nga génn. te xam nga oustaz lekk ci ci weeru koor moo gën a soof. non. moom nga defaa nga feebar. heure añ. ñu defaral la añ. da lekk da da nga naan woon woor. moo ko gën moo mm. xale yi ngay gis wóoruñu mm. sax. Mm. heure la ñuy la ñuy mën a. tane woon woor moo ko gën. Mm-hmm. beneen bi. mooy suñu soxna yi. Mm-hmm. soo amee sa soxla nga woor. Mm-hmm. bëccëg gi yenn bëri yi éviter ko. waaw surtout waaw. waaw eh madame tey sañ ah, ah. bëccëg bi noonu yooyu éviter ko. Mhm. di nga yëg nga ni yàlla ci alxuraan xam nga lan xam nga lan lañ jëkkoon wàcce. Uh-huh. dafa ne woon un mois wu koor gi yëpp. Mm-hmm. guddeeg bëccëg seen jarawaat seen jabar yi araam nañ leen. est-ce loolu la waxoon. boobu diis na de. loolu la waxoon torop boobu kay def ñenn ci saxaaba yi munuñu muñ seen i jabar. Mm-hmm. guddi gi. Mm-hmm. ñu tàpp seen jabar joteeg ñoom buñ ñëwee bu buñ xëyee ñëw ne tekk. <laughs> yàlla na jibrilu waxal yonent bi ne ko diw gis hmm. na ak jabaram diw gis na ak jabaram gis na ak jabaram jibril daal yonent bi ne jibril hmm. loolu de pour ma wax ko ñii dina ma diis waxal yàlla moo yafal ko hmm. ndeysaan yàlla wàcce waat benn aaya daal ne léegi bëccëg gi ba ba ngeen dog xaraam nañ leen mais bu ngeen dogee dagal nañ leen aw góor kon amoo droit tëdd sa kaw jabar bëccëgu koor bëccëgu koor di dàq di dàq koor di dàq koor amoo droit tëdd ci kawam di dàq koor amoo droit tëdd ki tànkam muy raay sa bopp ah loolu loolu daa wóor loolu wóor dégg nga loolu wóor amoo droit soxna si solu sax yenn façon solu yuy hmm. attiré ci biir néeg bi nga ne fa. Hmm. Ah, loolu wóorul. yooyu yëpp parce que wóorul yooyu yëpp hmm. dalil la moo tax lislaam ne la bëccëgu koor gi yëpp lépp lu lay xiirtal ci sa soxna. xoolal sa soxna xam nga dagan na la. ay def na la xaraam na la ba ba ngay dox. ay ah, dëgg la mutlaqam. est-ce bañ na ko ba nit. yenn saay su ko mooy yàlla yombee ci côté njaaloo. su bëggee mu dañ. nay woor. waay lu bëri. waaw booy woor lu bëri nii. da bàyyi mooy yàlla waaw.

bul foo ak sa soxna yenn façon fo yi ci mhm. bëccëgu koor mhm. mm-hmm. wóorul boo gisee mbëggal sa soxna mm-hmm. parce que moo la dagan mm-hmm. kon ki la daganul saful may wax waaw waa booy tey dafa mel ni tey da nga kii wala waaw yónnee ma sa vidéo tey di nga nga def waay sa photo tey waaw xale bi yónnee la boo xam ne dafa muuru nii toog ci sigaada sax sax comme sa soxna xëy sañse nii rek laal benn lu toog te dëjoom nii rek am envie nga xool ko sax c'est pas bon non dama ne maanaam lépp lu lay attiré. mais jàppanti jàppanti. waaw daje beeg yooyu kay. waaw waaw loolu hmm. nag. kon leer na. oustaz kii bu ko soxla kenn mënu cee juum. Hmm. waaw oustaz yow fi nga taxaw baax na. <laughs> da nga hmm. koy waaj da nga koy dëgg la de. yàlla ndax yaa ko moom. Ah. sa la. munoo cee heureusement heureusement nañ ko sax. ko bàyyiwoon li may wax nii waxuñu yonent bi dëgg la yonent sa soxna. boo xëyee tey mu lenn nga ko soxla guddi boo wàccee cinq heures ba sangu ba añ ba pare jëlal ndege ñaay bi ci fauteuil bi mhm. nga sànni ko mhm. wan ko ne commencé door tamit commencé door dàqe quoi mu xool na waaw nga piis ko ne ko sama neexee sànni la beneen waaw dóor dàqe moom nga jëlaat beneen bi dóor ko loolu mooy dóor dàqe dóor la ngeen di sànnante ngeen di sànnante loolu mooy beej kotot euh, kot ko. mu mm. dellu ak moom. waaw dafa ëpp doole. Mm. Ah. nga jékki-jékki bàyyi ko mu daaneel la wan nga doon ne ko ah sa waay léegi yaa ngi am doole ah. waaw maanaam yooyu. Mm-hmm. seen i seen i seen i yaram. diggoo. Mm. loolu la mag ñi naan beej. merci mm-hmm. échauffement. loolu la mag ñi naan beej beej. tey tey waaye saa waay tey tey xool ak jabar ji de ah. waaye déggaloon wolof waay. waaw ah, ngay ak jabar ji. xolo xolo xolo xolo liggéey bi. moom bu bu gisee jabar ji day béy ak moom rek. béy te yàlla nii. moo tax moo tax uh-huh. bëccëgu koor. Uh-huh. l'islam tere la. wallaay yenn façon yi ak sa soxna. tey sax mm. waaw l'islam tere na la ko ak sa soxna. Mm-hmm. ki la lewul nag. kenn waxatul loolu. loolu moom kenn waxatu ko moom. ay dëgg la nga xam ne lewu la. bu laal bul jege. araam na mot la xam nga. yii mais bébé tey ni nga wooree doy na waar. Hmm. dama ko gis am envie dog yow nga bu yàgg. yàgg parce que noo def mu daw fël fëlaale. man gis naa ku <laughs> bi. barki yonent bi ma la gisee ngay dem marché lépp lu ma woor yàlla na la ko yàlla jox. ah ah. mais maa ngi tuub man tey laa xam ne musuma woor ndeket. man yooyu dama ko daan wax bëccëgu weeru koor loolu bëccëgu weeru koor la. yooyu lislaam yow farceur nga yow maanaam. Mm-hmm. gis nga yàlla. Mm-hmm. dafa bëgg soo koy jaamu. Mm-hmm. nga jox ko li mu moom. di jëy. gis nga yàlla su ne interdiction. ba abadan interdiction. dëgg la. ak Sénégal ñu dañoo yëpp yàlla ñu. mu ne waaw waaw bu ne déet. bu ne waaw. waaw bu ne déet. déet waaw même ci feebar am ngantu koor. dafa feebar. jabaram feebar moom tam munul woor kooku sip nañ mu séq ak jabaram bëccëgu koor mhm, dañ ko sip maanaam ñoom am nañ ngàntu woor quoi mhm. mënuñu woor mhm. ñu ngi génnee seen mudd yi ñuy génnee noonu mais am na lu nekk ñoom ci feebar moo tax mënuñu woor ñoo woor sip nañ ci ñoom ñu sëy bëccëgu koor yàlla xamul dama doon kaf waaw sip nañ ko ci ñoom waa ndegam ñi feebar mënuñu woor dañ ko sip ci ñoom yow bi nga xamante ni nag yow dara jotu la nga woor mhm. l'islam da bëgg a wax ni mhm. bu la yàlla ne fii mooy arrêt bi mhm. nga la waay yem fa wallaay dëgg la koor du ay bis ay heure la rek yàggul diggante six heures la wallaay yàggul ba dix la heures dëgg la six heures ak dix neuf heures yow yaay xool lan laa ci defal yàlla loo xam ne suñu borom dina ma ko mën a dina ma ko mën a nangul te un mois bëriwul waaw te un mois sax bëriwul waaye nag di jëyib nit ñi daal nañ xam ni lii suñu borom indi muy weeru koor li nga ciy def muy dàq koor mm. comme niñ ko tuddee rek dàq mm. koor mm. na nekk loo xamante ni luy neex suñu borom dëgg la mm-hmm. waaw dàq stress su koor la ak tamit su ma toogee mën naa xalaat lu ma lu ma génnee tuuti ci yàlla gise pen toog ci booru géej gi gise pen nee na nag loolu métti na de même ba sa jabar <laughs> non non moom ab <laughs> pen islam la moom waxul sax jabar ji mais xam naa ni ceeb bi <laughs> ceeb bi mun na rarate moom moom mooy problème am ah, gis l'islam la moom mooy li ma wax léegi yàlla moom Mm-hmm. institu euh, constitution am. Mm-hmm. kenn du ko changé. déedéet bu xasee ne waaw ba aba abadan waaw lay doon. décret bu ko génnee rek jeex na ba abadan déet rek. léegi amul ay report. Mm-hmm. waaw déedéet amul loolu. ay report ko report koor amul. <laughs> amul de <laughs> DJ dafa am wax léegi. ki xooju ci géej. maanaam rek dàqi koor. dem xooj ci géej gi. ba 17h. 10 18h. wala nga xooju ci 8 ci suba. benn yoon benn benn cinq minutes. Mhm. nga génn ci géej gi noppalu. duggaat ci géej gi ba 17 mhm. loolu loolu lan lan lan. mais lii loolu dafa weesu baax. ok. xam nga lu tax. Mhm. parce que maandu nga ci lépp lu la yàqal sa koor. Hmm. ba kon ndox mi nga ne biir ndox mi nga ne moom amoo ci. benn maandu la loolu mooy maandu. waaw góor. mais doo ko defee foo xamante ne aussi jigéen ñi dañ faa nekk. bu fekkente ni jigéen ñi dañ faa nekk. te hmm. amoo feneen fudul foofu. Hmm. te mën ngaa yar sa bët ci xool waaw demal nga man nga dem concentré wu foofu daal waaw am na koo xam ne DJ Yves mhm. yar na bëtam ci xool waaw am na ku ko mënul nag waaw non am mhm. nañu ko mënul bu dee yar nga sa bët ci xool mhm. demal parce que ki kii simmeeku teg ay yéreem teg ay téléphone am ak lépp dugg ci biir ndox mi toog fa benn une heure deux heures de kooku maandu nga lépp lu xew ci ginnaawam comprendre léegi nag ñun duñ dem duñ dem fenn. waaye suñ téléphone yi mooy voyage yi di ñëw. waaw léegi téléphone la ñuy daaxee ko waaw nit ki. dina woor suba ba ngoon. man ak DJ Yves woor wala man ak Nooré ñi ñu woor. ñuy messageante nekk ci deru DJ Yves rek. Mhm. dëgg la ndeysaan. tey yàlla yàlla yàlla ne ndeysaan. di dóorante xeer rek. Iblis de yeew naa ko. tey. biñ nee feeñ na rek ci la malaaka yi ñëw. Mhm. yeew Iblis. ñu mhm. ne ko waaye yu bon yi ñuy def nag mu ne seen bakkan la. waaw yii nii. nekul iblis. Mhm. mais sen bakkan la kon wéru koor ku ne. man mhm. di julli rek a ma të. seytaane kay seytaane mënu mhm. la dé sa bakkan la sa bakkan la sa bakkan mo la mën. ngeen nek ci deru jambour yalla né waw nañ continuer rek. légui journée bi ki ngeen doon message ante ci mom ki ngeen doon jëw ci journée bi yëpp. lu ngeen am ci tiyaba ci koor gi sotti na ko léegi ngon oustaz kon euh, jotul aussi ci wéru koor ñu tëj TikTok ba koor gi passé

DJ Yves bul waxati lii waay. waaw TikTok moom gis nga TikTok DJ Yves. lu yàq moo ko yàq. waaye mais man DJ Yves man TikTok dama ci gis benn affaire. bu ma bu ma yéem xaw ma nag ñëpp lay daan war a dégg. Mm-hmm. maanaam TikTok boo ciy dugg. Mm-hmm. yow personnage bi ngay incarné. Mm-hmm. TikTok lay wan. waaw. parce que looloo tax dugg ci. maanaam personnage boobu moo tax nga dugg ci. ki nga xam ni. saa bu duggee TikTok ay alxuraan ay kii ay yooyu lay lii. saa bu duggee rek yooyu ñëw. waaw parce xam nga boo xasee ba dugg TikTok. waaw comme nga bës Coran. waaw léegi yow saa yoo duggee TikTok rek ay courant la lay wan. waaw parce que loolu nga njëkk a laaj TikTok. léegi fekk fekkee da ngaa dugg TikTok yow nga laaj clip tel léegi saa yoo duggee. clip te boo xasee ba aimé. maanaam nga gis tey man sama page. nga aimé sama page. lépp lu may def suba ba ngoon saa yow duggee TikTok rek man man ngay njëkk a gis. d'accord noonu lay demee. d'accord en tout cas TikTok euh, TikTokers yi ak yi. Mhm. ngeen baal ma mais bu fekkente ni. Mhm. ay kaawu jàmbur ngeen di traité ba koor ñëw ngeen jël ci pause. Mhm. koor gi jeex. ngeen delluwaat ngeen delluwaat ngeen delluwaat ci kaawu jàmbur yi. Mhm. benn affaire am na. Mhm. mooy li yàlla wax ci aaya bi daru leen. laallakum tattaquun. laallahum tattaquun boobu daru leen mooy échauffé wu ngeen def ngeen lépp. yàlla dugal leen ci terrain bi. bali di leen romb de gauche à droite. Sénégal xam nga lu war a njëkk a bàyyi. di traité kaawu jàmbur. wallaay yëfu jàmbur te cas bu ñu fi traité bu nekk. bu njëkk de kersa amoon. cas bu waaw cas bu ñu fi traité bu nekk. Mhm. dina mel ni ki wax ni mbokk mee gis. mbokk mhm. mee gis weer bi. Mhm. kii traité di jë Yves chaque jour mu wax ko lu ñaaw. boo ko laajee foo jëlee information bi. dama ko dégg dama ko wax dégg naa rek. naan la ah ah ma ne dama koo dégg rek. te jamais mu ne la ci diw laa ko dégg na. kon ñii TikTok. nañu xam ni. ni ñuy tiktokee ci weeru koor.

ñi nga xamante ni ñi ngi ci TikTok bi nga xam ne jaay moo leen fa yóbbu. Mhm. jaay ak publicité yooyu. Mhm. ñooñu ñu bàyyi leen di jëf borom kaay ñu tëj leen. ñu tëj kaay ba ñu tëj borom kaay rek. macha allah ñi jaay ñu bàyyi leen. Euh, xam naa ne foofu sax la ñuy la ñuy tàggatoo ak sunu téléspectateurs yi. macha ah, bu fekk am na loo ci bëggoon yokk loo xamante ne bëggoon nga ko wax. waa li ma li ma doon li ma doon bëgg a wax daal di jëf mooy. Mhm. Sénégal. violence bi fi am nii jaru ko ci politique bi. maa ngi gis Pikine ñu def fa ay jëf yu ñaaw. parcelles yu ñaaw sax waaw toj fa ay oto ñoo xamante ni. seen yoon nekku ci seen yoon nekku ci. seen yoon nekku ci. wallaahi la ñun daal lenn lañ war a xam. Mm-hmm. gis nga nit sax booy ànd ak moom mu violent. Mm-hmm. war nga ko fa mën a baax. dëgg la. violence bi ñuy def amul benn solo. mais ñoom est-ce que du ñoom ñooy def exprès yooyu. Ah. pour ànd ak yenn bagages yi daal mais loolu du yoon. c'est pas normal. du yoon ñi ak koo mënti àndal. àndal ak moom ci jàmm. ala yàlla. Hmm. nga ànd ak moom ci salaam. wallaay di jëf. Hmm. yàlla ku aay hmm. jomaay fay fu mu nekk ci prison. ñaata mbooloo ñooy ñëw ngir jomaay fay. Eh, topp ko. te moom nekku fa. te moom new fa. léegi yow ki ngay campagnal new fi. saa bu ñuy tudd violence ñu tudd la ci. keneen ki. muy euh, Amadou Ba. premier ministre. moom i tamit. nguur gee ko fi teg. ñii mhm. ànd ak moom ñii ànduñu ak moom. Mhm. saa bu ñuy tudd violence camp moom la ñuy tudd ak camp bii. Mhm. kon ñoom ñaar camp yooyu. ñi cay jiite waaw ñi cay jiite nekk ca kaw. Ah. war nañ mën fu ñu dem. fu ñu dem ñu jël micro bi ne gars yi. fi ñu jëm. laajul li ngeen di def. waaw te comme coow dañoo topp. waaw nañ moytu. ngoog doo ko dégg waaw fi ñu jëm. laajul li ñuy def. yeneen tamit bi ñu ko dàqee màkk. ba muy dellu siwaat mhm. dafa joxe ay règle dafa ne bu kenn yàq tool mhm. bu kenn ray jigéen mhm. bu kenn dóor xale ndeysaan parce que yooyu dañoo sacré te seen yoon nekku ci waaw parce que dafa am ñoo xam ni seen yoon newul ci yii di am ni te toujours xoolal euh, ñoom ñooy subir après conséquences yi amoon ma dégg benn député di wax ni benn waay bu ñu rey bu dëkk xaw ma géej waaye xaw ma fan. Mhm. waa bi biñ koy rey. Mhm. fekk na moom dafa ne yaay ji xaaral ma yéen du xool lu xew. di yéen du ñu rey. wallaay. kon kooku. moom manifesté wu. nekku ci dem xam ni daal. Mhm. yii ñuy def nii. amul njëriñ waaw amul njëriñ. benn ñaar defarul réew. yii defarul réew. cest gis nga gis nga pour man lii nii. waaw oustaz. man man man pour man mu demee nii quoi pour man. comportement wu nit ki la. oui daal di yow la quoi. Mhm. du leader bi. Mhm. du présent mais yow mii génn na ngay dem jàppal nit ki ci campagne am. Mhm. sa comportement rek nga yóbbu ci ci ci ci tali bi. mais dëgg boo nekkee nit ku violent ku réew. boo demee tali bi loolu ngay wane. dëgg la mais waa PUR. ñu wax ko te yàlla tax. mais ñu ngi def seen campagne te amul benn coow. déedéet xulawuñu. xeexuñu. dajewuñoo kenn ba tooñ wala cokkaas. mais ñu ngi xola ñu ngi campagne normal di dox di dox xola di dox seen campagne uh-huh. sol seen ay yére mais kooku di dox normal waaw xola di wax ak ñi ñu war a waxal di dugg fi mu war a dugg mais ñoo ngi te am te xola te amul coow waaw amul xeex mm-hmm. amul sànni xeer mm-hmm. amul génnee paaka amul génnee jaase mais c'est ça te xola depuis que pur et ba léegi mm-hmm. noonu la ñuy campagner man de ah man de man ci li ma fekkee ba léegi gisaguma mhm. fu pur génnee campagne ñu ne wa pur yak nañu wala togn nañu wala togn nañu mhm. lool il faut ñu il faut loolu ñu souligner ko mhm. légui lam moo légui léegi ñeneen ñi na def comme pur ah, parce que pur nak dañu dañu dañu dañoo am benn njiit njiit bo xamni c'est responsable moral Serigne Moustapha Sy al euh, al Maktoum ba ben dégg naa benn waykat bu ko wax ni yow sa mbooloo amul déglu leen Hmm. yow maraam hmm. maanaam moom bu taxawee sax di waxtaan amul déglu leen amul eh doo déglu sëriñ hmm. parce que loolu lañ leen xamal yow sa mbooloo amul déglu xam nga lu tax parce que moom loolu la def ci ñoom waaw psychologique boobu waaw teg li mu def ci ñoom moo feeñ ba feeñ ci seen campagne campagne waay man su ma la gisee ak seen dox bu sell ñoom ñëpp ngi def benn groupe di dox pourquoi pas ñeneen ñëpp daf noonu daf wallaay ñu baax baax ñu def noonu en tout cas nañu xam ni. Mm-hmm. jàmm lañ bëgg ci Sénégal. Mm-hmm. jàmm lañ fi soxla. Mm-hmm. kii falu na falu. ñu nekk ñu nekkaat ci li nekkoon. ñu nekkaat ci jàmm li ci ëpp solo. du toj du yàq. dara mooy ki ñuy fal. suñu jafe-jafe yi ñu am. yàlla dimbali ko. mu mën ko saafara te kii falu yàlla fal na ko ba noppi. yàlla na doon li gën ci Sénégal. donc kontaan nañu. Euh, Nabou Thior fii sa morom nekk ko fi. <laughs> Euh, wax ko xale yi xale yu ndaw yi mujjee juddu démb ñooñu nga koy wax. <laughs> ñun léegi ay paa lañu <laughs> macha allah Cheikh Omar Kër Massar jërëjëf Oustaz euh, kontaan nañu ñu ngi nuyu walla encore une fois suñu xarit Serigne Mouhamadal Lo ah borom baax macha allah am cofeel lool ci suñu jëmm yi nii ah yónnee na leen sax suukaru koor ah yow ak euh, as ca as as ñamali. ah maanaam ngeen ngeen ngeen ngeen paasee ko. lan ba waaw sëñ Mouhamadal Lo. suukar lan. <laughs> kon de kii dem Kër Saalum suba dina ko arrangé <laughs> waa ji la loolu moo baax. nee na nee na ana as ñamali la nag. maanaam paas paas bi la rek mais Pape Matar man maa yeex. Uh-huh. waaye Pape Matar bu ma ko teeloon a sondé. Mm-hmm. moom it xam naa ne xam nga ñoom Serigne Siré Lo seen ma <laughs> ba pare ñuy taalibi Seydi Hadji Malick. macha allah. ah en tout cas daal kontaan nañu ñu ngi koy gërëm bu baax a baax parce que nit tamit wax dëgg yàlla nga toog sa kër. ndeysaan xamoo ñii nga toog am yéene. yàlla na ko yàlla sàmm ne yónnee naa leen seen paas. nu mu tudd ah, ñu ñu ñu jàpp ci en attendant muy Serigne Mouhamadan Lo. waaw Serigne Mouhamadan ah, Lo borom baax. jërëjëf man maa ko tuddee borom baax. donc kontaan nañu yóbbante bi wax naa ko gars yi ci plateau bi. Mhm. nee na ñoom ñëpp ñu ngi lay gërëm kontaan nañu bu baax a baax a baax a baax. Oustaz lan ngay tàggatoo. waaw xanaa di sant ñëpp rek. Mhm. di mhm. di gërëm ñëpp. di gërëm tamit nag Serigne Mouhamadan Lo moomu. di ko ñaan yàlla na yàlla gën a yokk teraanga. amiin yàlla sàmm ko ci barke yonent bi. la gërëm bu baax nag yow DJ Yves. Euh, li ma yàgg wax rek mom lay wax la répétition est pédagogie yi alcorane yàlla ne fa zakir fa inna zikra tanfaul muminin de len fatali ndax fatali na jariñ ñi nga xamanteni ñom ñoo gëm que euh, bis bu nekk ma wax ni. xam nga téeméeri oustaz. Mhm. waaw yoo xamante ni sax xëy na ñoom ëpp niveau. Mhm. waaye bis bu nekk rek nga xam ne man kër gi sama kër la. fi laa mhm. bokk. waaw fi laa bokk. bis bu nekk nga woo ma ma ñëw fa tabaarakallaahu ñu àndandoo waxtaanandoo diine. waaye tamit tegaale ko ci jamono rek. nga xamante ni képp koo xam ne yaa ngi toog di seetaan. di nga ci mën a am lu mu tuuti tuuti. benn aaya wala benn xadis boo xam ni. di nga ko for ci sunu waxtaan. maa ngi la sant bu baax a baax a baax. dina ci gërëm. ñaanal la mu defal la jàmm ak gudd nuyu ñëpp nuyu père bu baax. moom tamit mhm. ziyaara ko. ñaanal ko yàlla mu bàyyi ko fi. amiin amiin waaw père euh, yenn saa yi dama koy yërëm nag su ma gisee père di. ndeysaan di làmb nii. wala ma gis mu topp kenn di la waaye yàlla yàlla dooleel la. amiin amiin yàlla yàlla kattanal la ci barke Yonent bi nuyu borom ñaari leer yi. noo mhm. rëy ni Seydina Ousmane mhm. moom tamit ñaan yàlla daal kër gi daal di yàlla yàlla def jàmm def fi salaam ci barke yonent bi alayhi salaatu wa salaam amiin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi jërëjëf Père Mbaw jërëjëf xanaa sant yàlla rek jullu ci yonent yàlla Mouhamed di mhm. amati contentement ak mbégte waaye di nuyu nag sëriñ Mouhamadan Lo mhm. yàlla na ko yàlla sàmm euh, weeru koor nag dafay mhm. weer woo xamante ni sii weeru promotion la lépp loo ci def dërëm juróom benn la ñaar dërëm fukk ak ñaar boo defee benn yàlla jox lu fukk nga def fukk yàlla def la junni kon yàlla na ko yàlla sàmm amiin te it dafa bokk ci yërmande. Mhm. ci lii mu def nii. Mhm. ndax amaana mënoon na ma toll benn point boo xamante ni mënu ma ko wax kenn. Mhm. te bu jaaree ca kaw def ko. defal ko oustaz defal ko kull koo xamante ni yaa ngi ci plateau bi. loolu buñ koy defit dañ la koy gërëmee. ndax bu lëg lekkee aloom na ko gërëma coy. lëg munta am mukk. technicité bu toll ni daw yéeg ci kaw aloom ga. dagg doom ba lekk ko fa munta ne mm-hmm. mm-hmm. coy boo ko déggee mooy picc ma nekk ca kaw mm-hmm. daw cof ko doom ba wadd lëg gi mën ko jariñoo kon loolu su amee yow mii lañ koy gërëmee man lam yaskuri naas laa yaskuri gërëmul nit doo gërëm yàlla léegi Modou Kara wax na ko léegi man su ma demee ba ku mel ni directeur moo njaay di ma teral ak euh, Griff Sougou mhm. di ma taral mhm. ak ñu bari ñoo xamante ni si tey mhm. xamuñu woon fenn fudul fii ci tele bi ku ci mel ni ajaratu Ndeye Sophie te musuñoo jàkkaarloo man ak ñoom billaahi oustaz musuñu gisee ci àdduna mais directeur moo Ndiaye guy gi la ma booleel guy gi mbër guy gi woo ma ma ñëw mu ni ma lii directeur moo Ndiaye moo la ko jox ma ne ko non da ngay caaxaan mu ni ma moo la ko jox defal vidéo ni ko jot naa ci nangam ak nangam ak nangam xam nga loolu wóoru mënu koo paase dëgg la te soxoro bono iñaanoo yow ni nga mel ren bu déwénee noonu ngay mel benn couleur nga kon ñu ngi lay ñaanal yàlla na yàlla sàmm mais du nuyu Abdou Aziz euh, mi nga xamante ni mooy suma maara bii di nit ku baax di mm. def social bu am solo fii ci géejawaay di nuyu Pape Matar Lo. bu Abdou Aziz Ndiaye. Mhm. taalibi Seydil Hadji Malick Pape mhm. ko fàtte. borom del bi xam nga ko baax. borom del bi borom del <laughs> macha allahu taala di def eh. social bu am solo. Mhm. am sutura nag. ba pare ami teggin. te boolewul daraa ki wax. waaw di nuyu suma papa. sëñ Ibrahima Kounta maa ngi koy nuyu bu baax. di ko jox wàccuwaayam. Euh, di nuyu Sénégal. Euh, Moustapha Marmite du Cœur. nuyul leen ma ko. Hmm. sargalal leen ma ko. Hmm. ñaanal leen ma ko. oustaz nit ku baax gi noonu. Hmm. may nuyu waa Kër Saala. di nuyu nooree nii di nuyu suma technicien yi di nuyu Sénégal gépp xam nga nag li tax tey nuyo bi di métti mooy. Sénégal laay nuyu ni leen guddi gi commencé na. léegi képp ku ko bëgg jàpp na nga ko kal ci. GLAN GTV GTV. léegi guddi gi. DTV non mais léegi GTV la. na ko ñëpp jàpp. alhamdulilah rabil alamin macha allah noo rëy nii hmm? Hmm? waaw alhamdulilah kontaanaat nañ bu baax a baax comme dab hmm. la ñuy wax ah oustaz Maodo bëgg nañ bu baax a baax a baax Père Mbow namoon nañ la yow yàlla dogal na addu laara nga la namu démb bi ma egsee rek maa ngi ko koy wax démb maa ngi fekkee barki démb maa ngi seetaan sa émission boo xamante ni tawaar fa kal la wax fa ay wax waaw lu TV nga wax fa ay waxi kilifa ak ay waxi nit ci li nga xamante ni mooy làmb ji nga xamante ni suñu sport la ma suivre la bu baax a baax ñun moom lu cof guddi gi rek it maanaam boo participer ci mbir bu jeexee dañ lay woo noonu laa defit galo fan yële DJ bi ma ko gisee feneen dafa pare mhm. def ma ma ne ko félicitation mhm. parce que nag lu jugee waaw lu jugee fii rek nga dem feneen suñ ndam lay doon mhm. wax dëgg faal dañuy won ni kon DJ fam la tegoon góorgóorlu nga ba keneen gis la. Mhm. ba am ci yow yool kon moom fi mu tegoon tànkam baax na. fi mu ko mhm. defit baax na. Mhm. macha allah di je di ñaanal yàlla moom koor gi dugg nañ ci bismillahi rahmaani rahim. am na yàlla dimbali. ñu génn ci ci alhamdulilahi rabil alamin ndax nag am na ñu ko fekkee woon daaw fekkee ñu ren wax dëgg fa am na ñu ko fekkee woon daaw mun ko tal ko te tey taluñ ko waaye yeneen ak yeneen xew na ci comme ñun yàlla dogal na ñu tal ko ñu mhm. fekkee ko nii te tal ko te am kàttan gi ba am yéene ji mhm. yal nañu yàlla dimbali sàmm ñu ba mottali itamit suñ yéene di jaaraat bu baax a baax a baax sëñ Mouhamadan Lo maanaam ni mu ko ni mu koy defee ci yéen rek la koy defee ci ñun maanaam xamee gi yàggul waaye mhm. démb dijee daanaka woona ma lu mat daanaka ay simili di ma soññ ci jëmm ji waaw di ma soññ ci jëmm ji di ma wax cofel gi mu am ci moom ak maanaam ni bëgg nit ñi téye ko maanaam loolu it maanaam ñun ku jàpp di ji ñun nga jàpp waaw ku ko cofit ñun nga cof mm. wax dëgg wax wax dëgg fa yàlla moo taxit ku ko jàpp rek ñun neex naqari nag dañ lay jàpp mm. waaye nag ku ko cofit di nga xam ni ñu it am nañ ful la mm. waaw ndax nag ndax nag moom yóbbante moom euh, ku nekk xam na ni da joxe ñu doog la indil la nga bëgg dooni defal ma lii rek ci noonu noonu noonu noonu waaw mm-hmm. kontaanati neen bu baax a baax di mm-hmm. béggee bu baax a baax Issa maa ngi lay béggee léegi petit joomaay la maa ngi koy ak <laughs> kalaam sama copain yal na yàlla def jàmm. macha allah naa nag suba. ñu koy nuyu ak Seydouane bu états nañu. di euh, ci réalisation bi merci ak Moussa ci wàllu son bi ñu doon seetaan ñëpp ñu leen di gërëmaat bu baax a baax. encore une fois di bu baax suñu yaay borom Alpha Voyage ñu ngi koy nuyu te di ñaanal fan ak yaram. ah di nuyu ñi nga xamante ne ñu ngi ñu doon bàyyi xel ci YouTube bi di leen nuyu bu baax a baax jërë ngeen jëf ah ci seen teewlu comme ni ma ko waxee ci tàmbali émission bi suba incha allah plateau spécial la ñuy def ànd ceeg yéen ba koor gi jeex muy eh, émission bu bees bu ñu dippee tapis rouge. ah bi nag dina dalal façon bu ne te émission bi incha allah ñu war ci ànd su sunu téléspectateur ak yeneen rubricaires yi nga xamante ne ñu ngi ci kër gi. ah ak journalistes yi nga ne ñu ci kër gi su ko ñu gungé ci ay ah, ci émission tapis rouge di dafa am émission rouge mais lépp tapis rouge la parce que comme dañ ci euh, élection campagne hein journalistes yi ah, avant bu wax li nga xew campagne programme euh, candidat après ak à partir de 22h.